li ñu dajale fii mooy dañoo ñëwoon lancé. li ñuy wax naan euh, octobre rose xam nga octobre rose am na ci réew mi yëpp foo dem ñu célébrer depuis le 1er octobre lépp loo xam ne dafa nem ci cancer col de l'utérus Sénégal yëpp ñu ngi célébrer Thiès aussi waru ci woon des donc c'est pourquoi tey ñu defoon benn manifestation pour que ne dañoo non seulement lancé octobre rose def dépistage mais également tambalé li wax prise en charge gratuite des cancers du col de l'utérus et du cancer du sein Le nga xam président de la république moo jël décision boobu depuis juillet donc nous koy saluer. loolu li muy andi mooy ci région bi yëpp danañ mën dépister donc ci district yëpp danañ mën dépister chaque district danañ def séance de dépistage mais bu ñu paree ci dépistage yi bu ñu trouver ay femmes yu am maladie boobu duñ leen bàyyi ñoom rek ñu nekk foofu di tambaambal duñ am fuñ muñ fajoo danañu mën a ñëw hôpital bu ñu hôpital ci service maternité le professeur Mariétou Thiam dana leen mën a jël en charge ba nga xamné duñ fay dara mais mënuñ jéxal wax ji aussi té mënuñ remercier aussi Ecobank au nom du ministre de la santé parce que remettre ñu un chèque de 1 million 500 pour que plus de 200 familles femmes maternité ñu mën leen jël en charge journée bo xamné dañ ko dédié pour femme yi pour que képp koo xam ne ñaanuñ ko mais képp koo xam ne am nga si feebar boobu muy cancer col de l'utérus wala cancer du sein ñu mën la d'abord dépister te bu nekkee dépisté dépisté nañ la boo amee cancer bi boo ñëw hôpital ñu mun la jël gratuitement te doo fay dara. ak directeur hôpital wax nañ ci léegi. bu autorité jëlee ay décision rek ñun dañuy confirmer wu à cette décision ça puisque léegi am nañ euh, prise en charge gratuite euh, de ces cancers léegi effectivement unité boobu nañ dem pour def ko service gën ko jox ay moyens pour que mun a gën a def liggéeyam ci fànn woowu. feebar bi jàppoon na ma metti woon na mais teel naa jóg ñëw fekk fi ñu baax ñu jàppale ma. ba yàlla def na tey maa ngi sant yàlla li may gën a wax man mooy sama moroomi jigéen yi nañu génn dem ci hôpital yi dem dépisté wu xool ba xam am nañu feebar bi wala amuñu ko ndax soo teelee dem hôpital ñu xam ne feebar bi am nga ko dinañ la faj ba nga wér fii Sénégal lu ñu fi mënul faj léegi amul bu ñu teelee xam li la dal dinañ la faj comme li ma sama docteur bu baax bi waxoon kon na jigéen ñi génn dem dépisté wu ji xam lan moo nekk ci seen yaram ndax feebar bi metti na cher na metti na mais ku faju di nga